Salut les amis de eSport TV Game, merci encore de la confiance renouvelée, merci de des likes, merci de des abonnés, merci également du bail et des commentaires. Toujours un plaisir Gaï de vous servir, un seul peuple, un seul but, une seule fois. Équipe beaucoup monnaie donc d'or, tchakao tchakanam avec l'équipe nationale du Sénégal, Gaï comme a du Koulibaly, bali, Donc on va parler aujourd'hui Gaï de l'actualité, hein, du football, mais aussi de la déclaration de Hamne qui dit Keita de Diao, Defnoko, Diom Chiliga Hamne, moi attitude, de Liverpool, Am, Chi, Digantemok, Sadio rumeur yi mais c'est un international sénégalais qui a parlé cette fois-ci mais d'abord gars yi kay bi di stade mouné le duo Mané Salah à l'assaut de l'Inter donc le Bayern en favori di jëm nak ci deuxième journée bi nga xam huitième de finale Ligue des champions ci loolu la dem titrer ci xën xët gu ñëk yéen kay bi di record mes amis donc euh, Bakary Cissé également donc Morba ñu la grande dame a rendu euh, rendu visite plutôt à Diagna donc équipe di fédération bi ñoo dem rendre euh, li nga xam visite à Knos, réew Nyon Mbappé fait plier le Real. Double confrontation Égypte-Sénégal, les deux dates connues, donc Dadi Khamgen le 24 mars là, avec le 28 mars mais d'abord Emmanuel Echi Adebayor mom dafa wax lu rafet ci équipe nationale du Sénégal nee équipe nationale du Sénégal da émerveillé ci coupe d'Afrique, bi ci sen volonté ci sen professionnel ak liñu football football et nee na un ci gars jappé amna am ci coupe du monde bi ñu jëm bu Sénégal qualifié na mercato hein Bruno ki ngeen di gis ni nak donc Nuno Mendes donc du jour yi nga xamné à Paris Saint-Germain mom nak option d'achat Paris Saint-Germain da bëgg a lever signé le ko contrat bu 5 ans selon les dernières informations la jeune pépite portugaise âgée de 19 ans Neymar qui aujourd'hui hein fait partie donc des 5 meilleurs passeur de l'histoire donc de la Ligue des Champions Neymar tay bokk na cinq meilleurs passeurs yi euh, le chef d'œuvre quant à Kylian Mbappé déclaration nee actuellement jëlagul benn décision bu gaay ni na décision pour dem Real il n'a pris aucune décision il va attendre la fin de la saison pour prendre une décision pour l'instant mi ngi ca Paris Saint-Germain et en même temps défaite bi nga xamné Real jël nako dem selon les informations gaay yi ngi wax nan ki nga xamné aussi moy Florentino Perez il n'est pas content de la réaction et du coaching de Ancelotti motax actuellement mi ngi envisager fin de saison bi bu fekkee Real dafa tok daal di koy kenan wut kenen euh, Égypte nak ñom li ñu wax selon les informations ñom avons def déclaration demande yu envoyé ko FIFA nous match match retour bi dañu bëgg ñu décaler ko 24 heures manam ñom buñu jouer ak Sénégal Nous ñu décaler ñom 24 heures may leen ndax dañuy sonn ci bi donc Keita Baldé Diaw mom dafa def déclaration bu ne c'est incompréhensible nee na moom mënut a comprendre euh, lu tax euh, manque de considération bi nga xam ne Liverpool am na ko ci Sadio Mané parce que moom nee na joueur mel Sadio Mané dara defuñu ko ci ba mu ñëwee nee na loolu nekk na loo xam ne aujourd'hui euh, daf ko xaw a jaaxal daf ko xaw a métti parce que Sadio Mané est un grand joueur maintenant gars yi yu bëri ñu ngi nag di wax ay information yoo xam ne ñoom amul source mais bon Sadio Mané moo ne lii et ne lii mais encore man ce que je peux dire je ce que je peux dire je précise mooy il n'y a aucune déclaration officielle ni de Sadio Mané ni des proches de Sadio Mané ni de Liverpool bu amee na ko gars yi génne woné ko bu Sadio Mané né mom waxul won buñ ko fété peut être nak peut être gars yi que dañuy bayyi match retour bi parce que match bi bay passé Sadio Mané ñoom dañoo demoon Burnley que peut être buñu ñëwé di jouer ci Anfield Road peut être danañ ko défal ben sargal mais pour l'instant Keita balde Diao mom moo wax moo actuellement un joueur de l'envergure de Sadio Mané ku toll Sadio Mané ak dayo bi mu am ak li nga xamné aujourd'hui liggéey na pour Liverpool ligéy ko pour Afrique ak li def Coupe d'afrique mom néna aujourd'hui il est un peu gêné gis li nga xam moy attitude bi nga xamné mom la wa Liverpool am néna mom moom sincèrement il ne comprend pas donc ce qui veut dire que mom en tout cas lui le concernant il n'a pas peut-être de retour amul ben retour amul ben lo dégg na Sadio Mané mom wax ci aujourd'hui beaucoup de gens dañuy confronter deux choses parce que ba match bi jeexee Sadio Mané dañ ko là, ci contexte Bob, gars tu ci contexte boobu ne ko dañ la gis nga jubilé ben, moment après nga dem ci Mohamed Salah mu donc man jubilé na, début bi mais après dama gis Mohamed Salah ma dem ci moom sama coéquipier la sargal ko parce que aussi défaite la moom tamit da ko bëggoon a gagné mais moi, tax ma dem benn moment bu mais après Sadio Mané dafa def fête ak gars donc on a vu que beaucoup d'internationaux donc démb gis ngeen Joseph Lopi ak également ki nga xam mooy Cheikhou Kouyaté entre autres ñoom ñëpp ñu sargal leen loolu na xaw a jur peut-être malaise ci côté bi nga xam Keita Baldé Diao ba Lunimel, wax lu Moustapha Nam aussi moom il a reçu bien entendu gars donc des félicitations encouragement nous décorons également euh, équipe salut Saliou Ciss gars yi gis ngeen tey jii ñu vidéo qui a dañ ko accueillir aéroport donc on ko boojoo bonjour, yee gis ngeen gars yi hein? donc également ki nga xam ne ak Abdou Diallo donc nous ñu accueillir len ci vestiaire bi accueillir donc également qui match defee leen ay interview ki nga aussi moy Famara entre autres aussi nous ñëpp bokk équipe nationale ñu gis li donc occasion aussi gars yi ñuy remercier club yi nga officiellement euh, wane nañ seen bopp wane nañ également estime bi ñu am lii image loo xam moom gars yi ñoo tweeté à son arrivée au niveau de Liverpool donc comme on dit aujourd'hui l'heure n'est pas à la polémique mais il fallait qu'on vous donne les informations la déclaration faite par ki nga xam ne moy mooy Keita Baldé diaw ici sur ces images voyez également ki nga xam moy Boulaye Dia Boulaye Dia aussi dañ ko accueilli def ko en direct fa nga xam ci euh, ci Villarreal jox ko soulier am ki ko jox également di Marco Senna di légende fa nga xam ci Villarreal la ngeen gis également Mame Baba au niveau de son club aussi ñu teral ko sargal ko jox ko raaya yëpp di wone aujourd'hui également euh, li nga xam moy ampleur bi victoire bi am ci club yi nga xam Sénégal ñu fi parce que premièrement day vulgariser image donc li nga xam moy club yoy mais également day wone grandeur club yoy mais aussi day jox aujourd'hui côté marketing dafa am lu muy créer ci club yi parce que bon amé champion d'Afrique wala champion du monde wala mënte am donc lool déjà côté supporter yi bu la gisee nga koy sargal supporter dëkku bob dañ lay gëna bëgg say maillot day gëna jar am visibilité et relation day gëna maintenant aussi entre Sadio Mané et Mohamed Salah c'est une relation c'est une relation bo xamné c'est saine dans le football donc euh, ay xarit lañ on ne cherche pas à les diviser mais aujourd'hui on parle de l'actualité concernant aujourd'hui donc le Bayern de Munich aussi qui a fait la même chose Nagelsmann bi nga xam def na déclaration aussi il est content que ki nga xam moy Bouna gagné li nga xam moy euh, trophée à ak ki nga xam moy équipe nationale Sénégal ngeen gis Habib Diallo également bu mu Strasbourg entre ici on l'a accueilli Sadio Mané jusqu'à présent la seule image qu'on a vue de lui moy image bi ba mu yeggsee mu ne yaa ñëw na gaay donc li lañ gis entre temps aussi des gens disent beaucoup de choses mais aujourd'hui Maintenant, c'est un sujet qui a été mis sur la table par un international sénégalais, Keita Balde Diao, qui dit qu'aujourd'hui, il ne comprend pas, c'est incompréhensible que Sadio Mane Sargal Bin Wara Sargal, ak Dayo Bim Am, ak limu Ligue Liverpool, disent trophée, yep gagné avec Liverpool, que considération, voilà, bok, guñ ko. Maintenant, comme je dis, je ne suis pas dans, nekuma ci objectif na non, def nañ ko defol, mais limu mëna wax moy de source moi, moy que aucune déclaration officielle de Sadio Mane, bu tweet wala le ki buñu ñu nako gaay génné, bu wax né mom dafa né célébrer maintenant aussi comme on dit conjoncture peut-être par rapport au match yi mais on espère man damay bok que le espérer que Donc, match retour bi donc ci Liverpool dinañ sargal Sadio Mané parce qu'il le mérite et aussi c'est la légende du football sénégal aujourd'hui gars yi woy leen di like woy di abonner toujours un plaisir de vous servir agrandissons la famille Dia ngène Dieuf.